partage leen vidéo bi partage leen ko ñëpp gis ko xam nga heure bii heure bii lañu ñëw sama kër heure bi xam nga wane wuñu carte wane wuñu dara xam nga pincé sama bunt ne dañuy dugg par force loolu fan la am fan fan ci àdduna bi ban dëkk bu am démocratie ndax parce que dañuy wax suñu réew dañuy wax suñu réew ku wax ci président ku wax ci koo mënti doon ñu naan ñu ñu ñu am lu ñu def pour yow pour lan pour lan pour lan li mooy police bu Sénégal heure bii lañuy ñuy di di di dajji kër jàmbur yi solu ñu tëni solu ñu dara am nañu dara loo ne ne ay policier lañu ah xam nga def lu leen neex gis ngeen ko ñu ngi nii en direct yéen a ngi leen seetaan Paris ñoom laa koy joxe ñoom laa koy joxe bu ma gaañ bu ma gaañ man yaay gaañ sa bopp yaa bëgg gaañ yow waaw man dama gaañ taxal jeex na wax leen. non man duma xoolal yooyu yëpp duma ci fekk. waaw ko sa loxo. non yaa ngi seere man nag sama loxo. ñu seere koy yow. voilà. sa def du xoolal da ngay dox ak man de du noonu nga may def de. du noonu nga may def de barki yàlla yaa ngi may gaañ. yaa ngi seere man nag sama loxo. ma génn noonu sama amul du sama bàyyi ma na génn génn génn amul del ma koy may ma ko may dara da may jox sama yére ma may dara ma may dara ma may dara